nañ tukki a même néeg waaw après yeewoo ko mm, mm, mm, du yee ñu bokk fanaan parce loolu moom la lay wax ca base ba la mais jéen ci intention bi la yàlla bëgg rek ah, boo tëddee cinq fekk ma sama téléphone ah yow nelawoo ko yow ma yow jiyee nelawoo rek na sa xel daal nelawoo rek yow nelawoo rek. kon xam nga xam nga kon xaritoo amu fa. amiin sama non non kii moom la vraiment wallaay bàyyi leen sama la sama xarit la. Oh, tour la ñu def oh. def nañu Espagne. def oh, Italie oh, def France ay ville def France ay ville fu ñu dem. waaw loolu ay peetoo la mais gis nga li nga la li nga wax nii am na ñu ko def ba pare finalement ñu mujjee njaboot njaboot bu bari sax. non non non non ah, mais kii sama sànq. waaw euh, sama sœur ba mu yàgg ngeen njaboot. Modou sama sœur ayca ayca Modou ne ko loolu peetoo la on continue. kon da nga bëgg ne xaritoo góor ak jigéen amul góor ña dañu nopp jigéen ki amul amul ay eh, amul mu ñaaw mu rafet ak mu jonga maag mu quatre-vingt-dix-neuf pour cent bu xale bi tàngee daggee moom non man na ma bëgg a leeral tuuti mooy xarit comme Aba dafa am ay xaritam léegi xarit pour te dire que même sëy yi ñuy wax léegi ci xarit lay dooree da nga gis Aba am xaritam ñëw sama kër seet ma am sama beneen xarit bu fa nekk jokkalante boobu noonu am fa léegi moo tax boo leen nee su ma takkee jabar dama koy bàyyiloo samay xarit man ma bàyyi samay xarit may leen affaire bi du foofu <laughs> alima mi am na yu muy àndal mhm. tey da ngay gis benn waaju nopp alima léegi jaar ci xaritam kooku bu problème amee alima ngay woo mhm. c'est que foofu laal bëgg ñu comprendre fa mhm. abaa day ñëw léegi ni war a dem takki jabar abaa am na ay xaritam tey am na loo xam ne bu ko abaa defee doo dem si papam doo dem si yaayam xaritam bi nga xam ne xam nga ni carrément ruus na ko kooku ngay dem wax foofu laa doon waxee ak yéen kon xarit boo leen ko génnee si diggante relation amatul jigéen ñi góor ñee leen di defaral moo tax seen seen yëpp tas na seen xarit yow ban de rama mii day am jëkkër déglu leen mu baax waaw sa xarit bu góor day dugg sa néegu biir hmm? waaw su fekkee sa xarit la dafa war a dugg si chambre à coucher toog fa di waxtaan ak yow léegi nag tey jii des fois des fois rama am problème ak jëkkëram par par exemple jëkkër ji impuissant ngemboo glace maanaam yëfe yow doxatul rama day dem ni ko ginnaaw rama dafa am xarit bu góor xarit bu góor day dem ni ko ah ma ne sama waa ji waaw déglu leen déglu leen déglu leen ma rek man ça vingt ans maa ngi ci télé ak rajo yi wax te nit ñi fu ne la ñuy jóge ci àdduna bi di wax ak man te yii may wax dafa am ay nit yu ñëw di ko dund di ma ko nette mm-hmm. rama ñëw jëkkër ji ngemboo glace yëf yi doxatul problème yaa ngi tàmbali Ramadan di woo xaritam boobu ni ko ah alaaji dafin mi ni affaire mi deux ans yi nii. dara doxul loolu war nga woo sa xarit bu góor. ah sa xarit mais sa xarit la ah ginnaaw yee sa sa xarit bu sa xarit la. sa la ñaari at la ko muñ nee na ñaari at. waaw waaw ñaari at ko wax affaire ko wax. mu mhm. woo xaritam bu góor bi wax ko ko. il faut mu génn mais xarit bu góor bi ñëw di ko fajal soxlaam. di ko jéegul di ko dépanner femmes yi bare ngi fii jigéen ñu bare ngi femmes yi jigéen ñu bare ngi fii seen xaritu góor yi ñoo leen di dépanné te seen jëkkër yëguñu ko mais ndooy jigéen du xaritu góor jigéen du nuñ koy woowee lanti mooy mooy mooy sex friend waaw kañ am na sexe ngi noonu am na loolu mooy sex friend ay xarit la ñuy doon doxaanante wuñu mais mm-hmm. suñu bëggee def liberté waaw koy bari na ma ne loolu su amee loolu mooy dépanner rek dépanner doy baan rek su puna baan tàmm bon la loolu góor jigéen duñu xaritoo xaale dama ne doy baan tàmm bon la gis nga am jëkkër seet leneen tàmm bon la lépp na loo xam ne xam baan mais am na ñoo xam ne bu se bi seen jëkkër deewee li ñu gëj a gisaat góor ba fi ñu toll parce que dañoo sincère woon ci seen jëkkër. mais nit ñi duñ benn quand même ah. mais nit ñi benn mais nag loolu dama ni lii ma wax nii lii ma wax nii. mais ci dëkk bi nu fi xos. mais li ma bëgg mooy ñu ñu ñu yi. un sexe frein a ngi toj dëkk bi nga naan ma la am jëkkër rek wala yoo xam ne. sekkuñu mhm. dara dem demuñu dikk kii xam na ne kii am na copain am kii am na jëkkër wala copine am ah ah. voilà saay bu ñu soxlantee rek waaw c'est parce que mënuñu génn mënuñu kiyante ma digul ñu naan ñaari olof naan ñaari kii yu du ñu bàyyante <laughs> loolu rek fii gars yi bàyyante ñu de benn waay bàyyu fi benn gelam benn waa léegi lii eh, yéen góor yi laa ko bëgg laaj mhm. est-ce que tey yéen ngeen am jabar di ngeen nangu yéen seen xarit yéen góor yi ngeen am xarit bu góor mu nekk ak euh, xarit ak seen jabar loolu yéen di ngeen ko nangu. non kenn nga mën a xaritool. ku góor ki mën a xaritool loolu ku jigéen ki. déedéet comprendre loo waxuma lool dama ne. tey man ma am jëkkër. waaw sama jëkk samay xaritu jëkkër est-ce que mën nañ nekk samay xarit mais doo may vas yow laa posé question bi dama. du ma ko nangu. <laughs> kon dimaton yi doon kenn jëlal Modou pour plan Modou nga ne lan du ma ko nangu yaaw lan moo indi eh, dimanche xarit xarit yëpp ñëw añee nañ ko déglu mu di ma jox la man sama xarit ñu dem ci rama ki wax xarit sama xarit nga wax de waxuma mu sama jabar de mais su ma demee Dakar mu ñëw sama kër sama ginnaaw dugg sama jabar ubbil ko kër gi mu toog ma ñëw fekk leen ñoom ñaar ci saal bi. su ma ñëwee dama lay fekk. Ah, wax na dëgg ok wax dëgg. Modou Modou yaa wax dëgg alxuraanu Karim. kon tey maanaam soo fekkoon buuba ci kër gi boo ñëwee da jabaram dina dugg sama magasin nuyoo ba dem du ma xam lu mu sol te musuma jox loxo musuma ko jox loxo. Buuba Ndour bis moo ko fekkee mu akolaat sama jabar ah, ma fase. sama jabar ba pare continuer moom suñu relation. waaw lu tax loolu. mais maa dul bokk. sama jëm ku ko mais mais buuba sa xarit accolade ma fase ko mais loolu accolade man sama boolewul sama rakk bu ji rakk bu góor bis bu ma demee ville génn mu ñëw sama kër sama ginnaaw may leen jàmm non dama ñu la ah dama ñu la exemple la loolu la gëm laisse ak li nga gëm yéen Modou day foo li ma am na ñoo xam ni barke alxuraanu karim seen copain mooy ànd ak seen jabar dem baali. waaw 5 heures du matin ñu ubbil ko mu ñëw. waaw waaw na fi. am na am na ko. man su ma nee na keneen ku nooy. Mhm. dëgg ma mhm. am na ñoo xam du ñu nangu lii am du ñu nangu lii. Bouba Ndour bu déposé gisoon sama jabar Dakar déposé ko. Almadi bu ñëwee moo koy yóbbuwaat seen kër. waaw ah, ah, waaw ah. mais pourquoi du moo di yoon lan da ngay strict tamit euh, da ngay ah, strict trop trop trop tamit. non non non mais a li mu doon euh, yow dimanche doo woo sa di sa kër sa jabar togg. jaagal jaagal def yu baax du lekk mais nag Modou dafa wax ñun. mais dimanche waxuma li may li may def dimanche. Modou nekkuñu Marseille. <laughs> Modou lay def dimanche nekkuñu France Modou ñun ay sénégalais lañu. yow dimanche man ñu dem. amul leen foo leen déranger da koy a man sama kër kenn du fa dugg yaa sa yaay du fa dugg da ngaa ragal Modou Gueye waaw moo taxawal ah. Modou nga ne seen kër sama kër ci nga ne sa kër sa yaay du fa dugg dimanche luñ fay wut yow léegi sa doo ànd ak sa jabar ngeen ànd sa kër yaay sax ngeen yeen def benn mais ñoom duñ ñëw sama kër duñ ñëw sa eh, kër pour la pour la ñu fay wut mais Modou dellul Marseille nag xajoo fii <laughs> Modou jël duñu ay pieds Monaco Modou ñun duñu ay ñag de mais lan lay def sama la fan laa dëkk sama yaay xamul fan laa dëkk Modou Gueye non non non duñu ñëw sama kër Modou Gueye yaa dem am benn affaire Modou Gueye yow boo xuloo ak sa soxna ah, da ngay boo xuloo ak sa soxna ba problème am waaw ba mu fay ba dem bu fay ba dem waaw écoute rek koo nopp mu fay ba dem ay problème mu ñàkk ok waaw léegi nga wax wax mu bañ nga wax mu bañ ay coow am fa mu gedd mer gém xanaa di xarit ne ko ku mu ruus wala nga ni ko woo ko waxtaan ak moom mu ñëwaat wala dara benn affaire de saa yooyu xarit de amul waaw mais yéen da ngeen bëgg jël ñëpp am leen ci benn mbuus ñëpp bon. non non non bu ñu waxee ñëpp ñi ëpp ñi ëpp la. am na xarit yu takk seen jabaru xarit. ñaata yoon ñaata yoon la gis kuréel di arrangé jabaru copain takk. dëgg la ñaata yoon. dëgg la nekkoo Sénégal. bu ñëpp yamee am ñu geet seen cër waxuñu ñëpp mais ñi ëpp la ñuy wax moo tax ñuy wax. man saa yu may wax du ma wax en gudd global yi mhm. damay wax ñi nga xam ni dañu nekk ci société bi di koy yàq. Mhm. ñooñu laay pointé. Mhm. ñooñu moo tax ma mel nii ma mel dama ci teg sama bët Mm-hmm. dëgg la mm-hmm. ma teg sama bët ma ñëw fekk muy jooy man ko la la wax wax ba laaj dafa ne dañ koy afa am problème mu ne ma sama rakk boobu kan ndey baay moo ëmbal sama jabar voilà léegi bëgg man ma wóolu xarit doo fi mais arrêté tamit loolu mi ngi fii lépp fi am ngeen teg loxo yi jaaraam ngeen ko fi metti mais raay raay bi amul maa ni wóoluwuma ah, kenn du papa du mag du xarit <laughs> sama jabar wóoluwuma ci kenn jërëjëf ayca du kenn ku ma ci wóolu mm-hmm. ba ci sa papa waaye déggoo li mu wax ah. déggoo li ma la wax maa ngi jégalu maa ngi jégalu kon ah. fu am solo yeggalil foofu noonu waaw fi ma nekkoon rek mooy li li li li Moodu wax nii xam nga gentleman dëgg dama koy waxaat gentleman dëgg réel dëkk bi ni mu tojee hmm? ni xale góor yi toll léegi ci hmm. wàllu pogi hmm. fob yi dafa dem ba egg ñu foo xamante ne daf ñu dépassé niveau bi donc amul benn gentleman buy d'accord jabaram di am ay xarit xarit daal mën naa cee xam sama jëkkër sama jëkkër ay xaritam mën nañ ñëw sama kër mais yow say say say xaritu jëkkër amoo ak ñoom waroo am ak ñoom benn relation boo xam ne mm-hmm. ay wootante téléphone ay fan nga nekk ak foon yi mais loolu mënul am say xaritu jëkkër na yem sa diggante ak sa jëkkër bu ñu mm. waree ñëw yenn si nga togg li ngay togg jeex na bu ñibbee ñibbi nañ jeex na mais am na ñoo xam dañu gàtt xel dañu baadoole dañu ëppal seen xaritu jëkkër la ñuy wax eh, seen vie privée seen xaritu jëkkër la ñuy wax lan lañ bëgg jëndal ma lii ñooy dem ñëwaat yàq yëf yi mais merci beaucoup parce que ku la xamal leer la ëllëg nga foog ne ay sama ami d'enfance ak sama ami lii ñoom ñooy tas tas kër mi ngi noonu bébé xaritu jëkkër yoo xam ne dañu osé dañu de savoir bi dëggantaan dimanche dañuy xëy teel a ñëw suba teel na defal ma ndékki wala wala sax li ñuy def mooy ñëw envahir kër gi ñoom ñoo ëpp non a rien fait intimité sax yéen ñaar dëgg la sa jabar ko def mais yow lay wut lu la neex parce que xam na ni kii sa xarit kan moo kan moo ko demandé <laughs> man maa la defal sama xarit yow da dul sama xarit sa dul dugg foo amee occasion di ko servir le eh, d'accord d'accord naa ak man sama jabar du servir kenn café la hmm? Hmm? Mhm. mais yow pour lan ñu ñëw toog bi invité la man maa dul invité kenn ba dañuy tase restaurant ñu coog foofu sama kër kenn lu invité wu fa kenn sama jabar di jaaga jaaga di leen toppatoo pour la mais arrête ñu apprécier waaye di apprécier di parce man xam naa sama bopp ni ma mel gëmuma ni ñu bëri dañ ko mel waaw kon nag Modou yow doo xool jabaru jàmbur est-ce que gars yi du leen mel nañu noonu hmm. Mm-hmm. am na solo mais Modou man dama koy waat laa wax. bu ma li tax mu bañ gaa yi ñëw ci këram ba ñu xool comme que ma joxe cër dagg jox cër est-ce que du da ngay bañ gaa yi di xool dagg bi mani sa dagg-dagg soxna seeg yooyu. man jabar bu dagg laa yam mais. dama ngay bañ gaa yi ñu ko xool. fulla bi daal moom moo ko may boppam. waaw dëgg la d'accord naa. Mm-hmm. Modou mën nga am fulla am dignité am caractère. man daal mais nga takk koo xam ni mooy tax ñu yab la dëgg la du ma la may temps nga yem ma ma lay fase oh, ma nga ca ma nga ca dem ñu yàpp lu la jaare sa jabar wala ñu yàpp lu la jaare sa jabar du may temps bu soxna soo xam day bëgg ñëpp nekk xaritam te ndooy nee na ku ñëpp nekk sa xarit ah. Ah, oh. yàggee nga jigéen gu bari xarit daal gelu gaa yi nga woon yaa ngi dégg dégg nga lii ah mais doo bari ay far c'est soo xoolee mbaraankat da ngay mbaraan da ngay am jaaykatu diw jaay ko tu greffage ah jaay ko tu tissu am tailleur jaay ko tu dibi yooyu yëpp nga am ko nga xëy suba benn nit takk la ñooñu yaa ngi seen i numéro da ngay jokkoo ak ñoom di jokkoo ak ñoom ah, bari ay xarit ñoon say xarit ñu moom à bu njëkk ba bu njëkk ba jigéen yaa doguma la bu njëkk jigéen bu amee jëkkër da daan changer puce looloy dëgg bu njëkk ba mais léegi am na góor ni da ngaa dëng am lay nëbb ba tey nga defar sa ah, a changer da nga war a ay ay li li kii wax mooy dëgg dama ne la jigéen buy sëy amoo pour ut ay sa xaritu jëkkër yi nañ nekk xaritam moom xarit mooy lan mm. buñ ñëwee ci kër gi sëkkal ak ñoom jàmm ak salaam le strict minimum gis nga jigéen jigéen dafay am caractère ci boppam mm-hmm. jigéen dafay am fulla day tax ñu naw loola mm-hmm. amoo pour yenn fooy sax jigéen ak góor sax da nat naturellement sax jigéen ak góor moo amul sax yenn mbalag yu ëpp yi ay bëreeg yooyu sax jigéen ak góor dañ ko dul sëkk yaa ngi may dégg non non non amoo xarit bu góor araam yi nga am yan la. moo yow aw xarit yu góor yow kañ nga may bàyyi du commencé ka tey. Mm. xam nga tey bi ñu tàmbalee ba léegi da <laughs> ngaa tàllal ma tàllal tey da ngaa ma tàllal yaa ngi ñëw. dama ni la ah. amoo sax pour la xasanteeg ak say xaritu jëkkër am leen jàmm ak salaam rek moom ay xaritam bu ñëwee boo leen servir demal toog fa ngay toog nekk say yëfi bopp buñ la soxlaa ñu woo la du dëgg boo mënee toog waxtaan ak ñoom tuuti waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom mais dafay am loo xamante des fois xanaa xamoo ñoom góor yi rek buñ toogee dañuy am envie toog waxtaan nekk si yow nekk si jigéen yeeg nekk seen i yëf comprendre ga waaye dama ni Pendo kañ nga may may di ma may de mais dama ne ma yow yaay arrêté yow ni may mayee dafa ëpp sax kañ ngay tàllal dama ni dama ni jigéen <laughs> li kii wax non c'est tey moom tey moom sincèrement damaa da damaa nangoog Modou tey moom damaa d'accord ak moom parce que man dama nangu sama xel moo nanguwul loolu man sama xel moo nanguwul ko jël daal jëlu ko noo jëluma ko nii duma loolu mhm. laay ku ma ko nanguwuma jigéen boo xamante ni da ngay sëy nga nekk ci yenn yi ay ay sa xaritu jëkkër ngeen di sëkk ay wowanteeg ay bébé yeeg ay sama chéri yeeg sama li fa lépp di tàmbalee chéri li lay waay lépp di tàmbalee gis naa ko gisaat ko fii kenn ku ci nekk suñun amaana boo ko gisul dégg nga ko koo xamante ni waxee rek nga am problème ak sa jëkkër nga ne moom la xaritam nga di ko woo di ko wax mu mujj a takk ba amee jëkkër nan ngay amee jëkkër eh. am moom problème di woo ak sa ex di ko expliquer déedéet loolu moom la la léegi góor buy nooy moo nangu loolu arrêté jaawa waaw xaar naka laay ñëwee sama dépense jox ko rama mii ni ko téem ñaar téeméer la am dépense añ ñëw dem liggéey ñëw fekk fa exemple yëpp tey ci rama la ko joxe non non non exemple yëpp tey ci rama tey dañoo wàcc alima tey tey ma wàccee ñëw ñëw ñëw ñëw jox ko 1000 francs dépense dem liggéeyi ñëw fekk fa ginaar foo jëlee ginaar yi sama càmmañ la mama may <laughs> man su ma la bàyyi les dépenses yu téeméer toggal ma toog téeméer dem loowu ma la sa benn càmmoñ sa benn xarit pour mu yokkal la dépense ko yokk sa dépense yokk sa kàddu mhm. mais xaalis ba tem nga ni sama yaay la ko jëla fekk sa ancien far yee la may ay cinq mille ak nga ñëw toggal may gën a mhm. téeméer laa a jox toggal ma togg téeméer maa la jox sama téeméer yamal sama téeméer waaye da ngeen a bari ay càmmeñ yoonu marché fu ne ngeen di jàpp wax ngeen jàpp seen càmmeñ yi seen la waaw demal demal demal xam nga Alima dafa wax benn wax léegi c'est que comprendre mooy hmm. sa jëkk xam ngay góor xale góor yi dañ lay tàkk ba pare dimanche ñooy la tey suba de sama xarit fi la ñuy yendu dama lay wax personnalité nit ki mooy tax sa xaritu jëkkër du la dépassé hmm. hmm. benn ñaar mais munoo ni sa jëkkër munul am ay xarit nga yekkal leen ba pare nga dem fële toog loolu munta ne ñun ay sénégalais lañu mm. il faut ngeen ñëwaat ci région bi tey ndoy baan yow tey ndoy baan boo tegee sa dépense sa biir kër woo sa juróom benn xarit ñoom ñoom ñu daje fa toog añ sa jabar dina jaagal jaagal dina teg ay yëf mais personnalité nit ki wala am ndoy baan kaay ma la am na jigéen ñoo xam ne xaaraan bi la gars war a baax. xaaraan bi dimanche bi ñëpp toog wër ah, ah, bi ñu bëgg a nëpp noonu. waaw ko def ñoom woo jabaram ne ko kat suba toggal lu sama gars yi dañ ay ñëw. nga ñëw teg jaagar jaagar teg ñu xam ne yi a toog na lu mu yegg au moins que xam ne aba ñii ñooy ay xaritam nga tegal leen ñu lekk ñu naan ñu xam ne au moins que yow sa sa kër am na lii ak lii problème dama lay wax ne la pour nga wax ko sa xaritu jëkkër ça dépend ci loolu dafay am foo xam ne sa yaay du ci jot mbaa sa papa du ci jot waaye di xool benn xaritam ne kii la rus naa toog moom ma expliqué ko ndoy baan ay sénégalais lañu aada bi ngeen fi bëgg dindi mënut a ne ay yendu dimanche pour lan mu bàyyi man mi xool man dama amul xarit man waaw man waaw boobu xarit nga waaw léegi beneen beneen beneen aspect day xasaate sa jëkkër nga bàyyi ak soo amee problème yaa sa jëkkër waa léegi da ngay dem ci yaayam wala papaam nga wax ko ko mais waroo dem sa xarit wala xaritam buy yàggee leneen day am fii gis nañ fi ba taay kuy def gis nga jigéen dafa soxla épaule épaule gis nga boo amee sa problème ñëw ma teg la fi ne non sa waaye day déconné nañ dem jël verre <laughs> buy yàggee da ngay daanu dama lay mhm. jël. arrêté wu ah, euh, non non je suis pas d'accord. non dafay fekk intention yi nekk fa. non non non mani. je suis pas d'accord boo yàggee boole bu yàggee di nga këpp. arrêté jigéen oh, ku koy déglu. attention la ñu bëgg. d'accord waaw ku ñëw nga def sa épaule tàpp ko jëlal ko glace kërëb kërëb mais finalement affection day dugg. su fekkee sa le il il il la pas. fii ñaata jigéen ñoo may woo di ma muur man toog ça fait 6 mois sama jabar sama jëkkër teguma loxo mais daf fi am yéen da ngeen yaakaar ni ñun ñëpp tout le monde est rose là. yow da ngay bañ sa soxna di woo góor yi ko wax la ngay nangu ay góor jàmbur mais c'est parce que li ñuy wooyee nooy baat di ko expliquer. dañ may woo te ñooñu duñ sama xarit ah, ah, mais kon yow bul nangu loolu. mais dañ lay expliquer non c'est pour avoir une solution. Ah. wax na wax na ba dugal sa bopp wax na dugal sa bopp ci kàmb bi. damay génn accepté woo sa soxna di woo góor di ko wax seen problème. non man ngay nangu soxna jàmbur di la woo di la wax problème de kër nga koy accepté. mais bien sûr non mais quand même je parle pour tout le monde. dama léegi mbaa ko def ci ñeex mi ah mu doy baax dañuy ñëw di ko. du ma lekk nen bi ñuy taatu may nees. dooy liggéeyam la. man sama liggéey ah man je sors à la télé je parle am ñoom dañ may woo di ma Moodu li nga wax ànd naa si li nga wax ànduma si. yenn saa ma wax ba pare tudd kenn. mu mel ni mu ne ma démb li nga wax sama problème nga tudd. léegi dafa dafa am beneen aspect man la lii soo bëggee nga gëm bu nga bu nekk ci biir. ou bien mooy hmm? avant que may ñëw euh, ci dans le milieu professionnel dafa am beneen aspect boo xamante ne aussi mi ngi ci biir tey man ak Moodu ñuy sëy Hmm? amin divorcé amin amin amin ñu divorcé doo bàyyi ba may yegg ci fi ñu jëm hmm. ñu divorcé ah, <laughs> divorcé ngeen subhanallah Modou <laughs> ba divorcé divorcé nañ ba divorcé mun nga bàyyi xel sëy ngeen ba divorcé ba divorcé ah. <laughs> ah, léegi Modou am jabar beneen jabar mm-hmm. man ma am beneen jëkkër mm-hmm. est-ce que tey Modou man ak moom mën nañ continuer di nekk xarit am benn relation. wala am benn jamais de la vie <laughs> bul yeggali bul yeggali léegi du ngeen bu fa ay doom amee nag. ba doom la jàng sooratul soree rek. doom la non dama leen di laaj abaa yow ci biir wax ji nga bokk xale jigéen ñi jeeg ñi toog ci plateau bi ci biir wax bu fa ay doom nekkee communication bi loolu nan lay demee. day yem ci cadre doom bi. day doom yi rek. sooy jëli communication man tey su ma am yàlla nattu woon ba ma takk jabar boo xam ni par exemple. doo jëkkëram bu njëkk bi faatu na dee <laughs> te dafay dee. ñu toog benn benn benn jour anniversaire jëkkër ji ma dem liggéey ñëw rek fekk mu teg ay boolu laa man koy loolu la mu ne ma sama ex jëkkër laay ñaanal. waaw gis nga ñi gis ñëw. la nga koy def. gis di ñaan si kaamil bi la nga koy def noonu. bu ñuy dem ak seen kaamil dañ koy yóbbaale. <laughs> da koy fasawaale. mais <laughs> wax na dëgg di bu ñuy dem kaamil beeg moom la ñuy yóbbaale. wax na dëgg su koy wàcceel kaamil na dem ci këram. waaw mais Ndoye àdduna lépp loo gis dañ koy rafetal rek. dama ni na dem ci këram.